kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey suñu bind bu mujj ci suuratul xaj fi suñu borom di waxee ni alam tara an allaha saxara lakum ma fi l ard إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi kon ñu ngi santaat suñu boroom jalla wa ala mi ñu wërsëgal ñu daje ci ab néegam di fas yéene jàng ab téeréem suñu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bégal ñu ci ne amul benn mbooloo ñuy dem daje ci néegu bi yàlla ba di jàng téereb yàlla bi lu dul yàlla wàcce ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem sant ay malaakaam ñu ñëw wër leen mu leen di tudd ca malaaka yu kawe ye ne fa moom yal na yàlla boole ci suñ jotaay bi mboolem ña nga xam ne it ñoo koy nar a déglu ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf yàlla na yàlla boole ñoo ñoom ci ñi nga xam ne seen xol day aju ca jàkka ya te fayal ñu it techniciens yi nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom di leen ko jottali tey jii mooy le 17 ci jumaada saaniya ci mille quatre ci la nga xam ne mooy 1441 le 18 bokk di tombeek le 12 ci février 2020 kon incha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane mu jëlal ñu suñ bind bu njëkk ñu ngi ci 65 ci suratul hajj waaw suñu boroom subhanahu wa taala mu ni alam tara moo ndax yow gisoo ann allaha saxara lakum ma fi l ard ne yàlla day tàggat na ñeel leen lépp lu nekk ci kaw suuf walfulka tajri fi l bahri bi amri tàggat na it ñeel leen gaal yay daw ca géej ga ci ndigalam wa yumsiku samaa an taqaa ala al ardi illa bi izni ca mootee asamaan ci muy daanu ci kaw suuf xanaa lu dul ci ndigalam inna allaha binnaasi la ra'uufur rahim seen borom yàlla de ci nit ñi ku leen ñeewanta la ay bëggul lenn lu leen di lor arrahim kuy am yërmaande la ci ñoom ci lépp loo xam ni da leen di jëriñ wa huwa alladi ahyaakum summa yumiitukum mooy ki nga xam ne moo leen dundal gannaaw ba mu rey leen summa yuxyiikum gannaaw ba dana leen dundalaat inna al insaana la kafuur doonte ne doomu aadama day la ëpp ci ñoom ay suulkatu njëkki lañu te mooy ay yéeféer lañu li kulli ummatin ja'alna man sakan hum naasikuuhu bépp xeet def nañ ñel leen jaami wunu yàlla wu ñuy jaamoo yàlla fala yunaasi'unnaka fi l amr ngallawaay bu ñu xëccoog yow ci mbir mi wadu ila rabbik wooteel jëme ci sa boroom innaka la ala hudan mustaqim yow day yaa ngi ci njub mi ngi noonu goo xam ne gu jëb kocc la hudan mi aw yoon mustaqim bu jëb kocc wa in jaadaluuka bu deen dañoo ñëw nag di dagg santeeg yow fa qul illahu aalamu bima taamaluun neel yàlla day moo gën a xam li ngeen di def allahu yaxkumu baynakum yowma alqiyaama yàlla mooy atte seen diggante bu bis fen ci taxawee fii ma kuntum fiihi taxtalifuun ca la nga xam ne nekkoon ngeen ci di ca wuute mi ngi noonu mbokk suñu boroom subhanahu wa taala daf ñu ubbil ñaari alquraan alquraan bu jëkk ba mooy lii ngeen tiim di ko jàng muy aayey borom bi beneen alquran ji mooy jawwam ji nga xam ne dañu caa dugal muy diggante asamaan ak suuf mu tasaare ci ci ay million ci ay kawteef ci lu ñuy gis ak lu ñu dul gis loolu lépp dañuy jàngal la nga xam ne mooy xikmaam yërmandeem kattanam mu bokk ci loolu mu ni yéen doomu aadama yi maa leen tàggatal li nekk ci kaw suuf doomu aadama yàlla tàggatal ko jur gi comme ni ngeen ko xamee xar yeeg nag yeeg yépp waaye tàggatal ko xatta gaynde yi da ngay gis ku yar gaynde ba ci war ci kawam nga gis ñay yi boo demee Inde gone gu ndaw jiital ñaar fukki ñay yàlla tàggatal ko mu mën a dévier dex yi mën a yett montagne yi mën a bëtt géej gi wala mën entre Angleterre ak France lii di Manche bi tunnel lañ jaarale ci suufam mu relier ñaari pays yi kon amul lenn lu nekk ci kaw suuf lu dul yàlla may na kattan doomu aadama mu mën koo jëriñoo ci ay njëriñam waaye gannaaw loolu mu ne xoolal yàlla moo leen tàggatal gaal gaal yi daw ci géej ci ndigalam moo ñu tàggatal gaal may ñi lañ koy defere tey jii doomu aadama bu ñu xoolee gaal yi ñuy defar na ci lu mel ne ay Marco Polo ak yu demee noonu yoo xam ne dina mesurer presque quatre cent mètres de longueur am ci yoo xam ne dana yeb ay centaines de milliers de tonnes yii ay pétrolier lañu yii ay porte avions lañu yii ay dëkk la yuy déplacé wu mën a jël plus de huit mille places yi nekk seen biir loolu yàlla may ñu ko ba doomu aadama yi nekk ci kaw suuf mboolem li ñuy jëfandikoo penkook sow quatre-vingt-dix pour cent ba gaal yooyu ñoo koy def ci ndigalu yàlla mi jël géejam utal ko benn ah melokaan woyeful comme ngelaw nga xam ne lu ci dugg daanu dëgërul comme suuf wala fi ñoo naan suuf gaal du ca daw loolu di kattan yàlla moo tax mu ne bi am ci gannaaw ba loolu nga teen kaw asamaan xoolal jant bi xoolal weer yi xoolal biddiw yi suñu borom bu nekk man ka teg orbite ba mu nekk ci falakam amul benn boo xam ne dana faq daanu ci kaw suuf xanaa lu dul bi izni te loolu yowmal qiyaama dana am isa shamsu kuwirat wa isa nujumu nkadarat ila axir lépp jaxasoo waaye ci jamono ji ci kattanam la ko téye borom bi nag ni mi ngi noonu nekk na ci nit ñi ku leen ñeewante di leen yërëm arraqfa suñ ko booyelee rek day indi yërmaande day dàq lor di indi njëriñ arrahma it naka noonu la amma buñ leen boole arrafa day gën a jeng jëm ci dàq lor arrahma gën a jeng ci indi njëriñ borom bi nag mun a kon mi ngi noonu moo jël doomu aadama lépp loo xam ne waroon na koo lor mu fegal ko ko lépp lu ko doon jëriñ mu tàggatal ko ko jalla wa ala borom boobu yi diñu xamal ni moo ñu dekkal ay doomu aadama xamal ne ci dee nga jóge ñun ñépp ba ñuy yàlla di indi àdduna diñu sos ci suñu biiru yaay dañoo deewoon pendant quatre mois gannaaw ba nag suñu borom indi ak ruux dekkal ñu ci suñu biiru yaay indi ñu ci kaw suuf gannaaw ba bis moo ñuy rey lépp loo xam ne nekk na ci sabab mbokk loolu sabab rekk la fu doomu aadama jaar dee doomu aadama jaar na fa deewul am déet avion explosé ni ci kaw doomu aadama yi ci nekkul ñëpp takk yàlla musal te kenn wala ñaar wala la ko soob kon yàlla mooy rey rey googu nag mbokk ñu xam ni ab dat la bu ñëwee jeex na du waa ji daa néew doole du waa ji daa ñàkk du waa ji dafa feebar du waa ji dafa am déedéet dig la bu ñëwee jeex na bokk na kaw téef benn soxna bu ñu wax yaay sow buy ñëw ci mbooloo mi mi ngi may woo ne ma yaayam dafa gaañu ñu ngi ko doon denc tey ci suba keneen ci soxna ku nekk yëmbal di téléphoné di wax ne doomam bu jigéen daawul dañ di déglu tafsir yi waaye moom it dafa gaañu xool leen ba ko julit kii mi ngi woote sama yaay dafa gaañu kii woote sama doom dafa gaañu kon ndekete dégg amul benn kii de ah bii démb ci tisbaar ñi ngi doon jullee fii benn soxna ñu wax Fatima Bari moom it amagul 40 ans bàyyi doom yi ndaw mbokk ñooñu ma lim ñëpp yàlla yàlla jéggal leen yërëm leen defal leen jannatul firdaws mi seen wàccuwaay waaye damay bëgg a xamal ndaw ñi bu ñu seytaane nax nga jàpp ne man jeune la jaamu yàlla gi moom na fay dem te jàkka ja kii ah moo man sama jeunesse dama koy doxal su ma màggee jaamu yàlla lan moo la garantir ne da nga màgg kenn garantir la ko te xamal ni keroog bi nga majeur am 15 ans ba 18 ans maximum yàlla yàgg sa bàyyi la yemele mboolem loo def ci lu bon ñu ngi la koy bindal loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi nag mu ne doomu aadama day ku mën a weddi yàlla la mbokk xéewal yaa ngi nii maa ngi leen di laaj ñii ñii woo ci duñu yàlla ana ku ci tàggat géej ñii ñii woo ci duñu yàlla ku ci bind dara ci kaw suuf ñii ñii woo ci duñu yàlla ku ci mën a am dund ak dee doomu aadama suñu borom yàlla mooy def lépp teewul la ëpp ci ñoom keneen la ñuy sant ko dul yàlla suñu borom bàyyi loolu daa dina nag ne xam leen ni mboolem xeet yi fi jaaroo munzu nuux ba baa ngay wàcc ca ibrahim ak yeneen yi ñëw ci gannaawam ñoom ñépp wutaloon naa leen façon bu ñuy jaamoo yàlla loole la ma ca soob ma saxal la ma ca soob ma changé yéen xeetu yonent bi it ma yónni leen ab yonent bu leen di jàngal ni ñuy jaamoo yàlla suñu borom nag mu ne fala yunazi'unnaka fil amr mbokk nañuy jaamoo yàlla kenn dong nga am droit jàngale ko muy suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla gi ci abubakar la jógee laa wallahi amul ci lislaam jaamu yàlla gi ci omar la jóge amul ci lislaam mboolem ni ñuy jaamoo yàlla yeneen ci yàlla moo ko jàngale loolu moo tax kenn kenn amul droit rafetlu dara ci jinne yàlla ji di ko jàngal doomu aadama yi abadan ku dul yeneen ci yàlla fala yunazi'unnaka fil amr borom boobu nag subhanahu wa taala ne ko wooteel jëm ci sa borom te it noonu la meloon daa'iyan ila allah mu safaanoog li xew suñu jamono yi tey téeméeri junni ñi daje ña ngay woote jëme ci suñ sëkk un million daje fe ña ngay woote jëme kër mbeng nangam daje fële sama bàyyi sama maam abadan mbokk julit yow mi nga xam ne da ngay roy sab yenent ngal la way jaami yàlla yi woo leen yow góor bokkal ci ñuy woote yow jigéen bokkal ci ñuy woote waaye nag udu'u ila rabbik wool nit ñi ci ñu gëm yàlla yaakaar yàlla jaamu yàlla woote rek moo la war yàlla nag subhanahu wa taala moom mooy ka nga xam ne mooy def lu ko neex ci ay jaamam ku ko neex mu jubal ci la nga xamee ni nii mooy mbaaxam jaarale ko ci yow ku ko neexit mu bàyyi la ci sa ak réer amma yow yeneen ci yàlla yaa ngi ci njub goo xam ne jub goo yoon bu jub kocc la moo tax suñu borom ne in tuti'uhu tahtadu ngalla waaye mbokk jurit yi soxlawuñu lu ñu suñ cam di dollil soxlawuñu ab raccourci bu ñuy jógee ci suñ sow soo bëggee jub bëgg ngërëmal yàlla yoon wi benn la mooy yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innaka la ala hudan mustaqim yaa ngi ci yoon wu jub wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko toppee da ngeen jub borom bi nag ne su dee ne woote nga ci njub ñu ñëw di dàggasanteeg yow neel yàlla moo gën a xam li ngeen di jëf ca loolu it mbokk ndawal jullit ñi bàyyi ci xel ngalla waay bu leen ñàkk seen temps ci yàqkat yi nga xam ne dañuy woote di gàllankoor sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi leen ak seen mbir yow jàngil sunna toppil sunna seeni wax ak seeni caaxaan bu leen déglu bu leen ko lijjit borom xam-xam yu jëkk ya dañ daan bañ déglu waxi bidda ak waxi yàqkat ndax temps ba mu leen di jëlal de ak jeexital ba mën a jeexital ci yow xol dafa gaaw a capté soo déggee caaxaan benn yoon déggaat ko ñaar yoon déggaat ko ñett yoon rek am na jeexital bu muy def sa xol loolu tax du yem mukk ci ki yaroo ci benn place boo xam ne kenn dafa wax lu dul qaala allah qaala rasulullah ak yemoon ca place yi nga xam ne ay caaxaan yi ko xurafaat lañ koy wax su ko defee ngeen bàyyi xel réseaux sociaux yi des tonnes et des tonnes de ay xabaar yu ñu ciy wàcc di wax ne lii xoolal li def nangam nangam déedéet xoolal la la cay jëriñ nga sax di jëriñu mais lépp loo xam ne amul la benn njëriñ tant que yaa ngi ci nekk yaa ngay lor sa bopp wa in jaadaluuko bu ñuy dàgg sante nee leen allahu a'lam bima taamaluun ca nga xam ne bis mi ngi ñëw bis mi ngi ñëw yàlla dajale ay jaamam atte seen diggante ci lépp lu ñu jooyoo bu keroogee yal nañu yàlla boole ca ña farag yonent bi ak sahabaam wa sallallahu mi ngi noonu kor Cheikh Ousmane
alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fi samaa'i wal ard inna dhalika fi kitabin إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم
fiikum suñu borom mu ni alam taalam moo ndax xamoo ann allaha yaalamu ma fi lsamaai wal ard ne yàlla day xam na li nekk ci asamaan ak li nekk ci suuf inna dalika fi kitaab loolu lépp di ma nga ca ab téere inna dalika ala allahi yasir loolu day lu yomb la ci yàlla wa yacbuduuna min duni illah ña ngay jaamu gannaaw yàlla maa lam yunazil bihi sultaana loo xam ne yàlla wu yàlla wàcce wu ca benn lay wa maa laysa lahum bihi ilm ca yàlla deful te ñeel leen benn xam-xam wa maa li zalimina min nasir ca du ñeel mukk tooñkat yi ku leen di dimbali wa ida tutla alayhim ayatuna bayinat bu ñuy jàng ci ñoom sunu aaya yu leer yi taarifu fi wujuhi alladina kafaru lmunkar da ngay daal di xam ca kanamu ña weddi lii di ak sib ak bañeel gu ñuy bañ aaya yooye yakaaduuna yastuuna billadina yatluuna alayhim ayatina xaw nañu sax di jóg di kaw di jóg di dal ca ña nga xam ne dañuy jàng ñeen leen suñuy aaya qul afa unabbiukum bi charrin min dalikum nel xanaa du ngeen kaay ma xabaare leen ci lu yiis ci loolu annaaru waadaha allahu alladina kafaru sawara boobee nga xam ne yàlla dig na ko ñu weddi wa bisol masir ak bon la nga xam ne muy ak mujj ñu ngi noonu mbokk suñu boroom bokk na ci lim ñu gëmloo lu xaw a bari waaye mu am ca juróom benn ponk yu munta ñàkk ponk bu jëkk ba mooy gëm bi ngay gëm la nga xame ni nii mooy sa boroom jalla wa ala ci ne kenn la ponk ñaareel ba mooy nga gëm ay malaakaam ponk ñetteel ba nga gëm ay téeréem ñeenteel ba nga gëm ay yonentam juróomeel ba nga gëm alaxira am na juróom benneel ba nga gëm ay dogalam dogalu yàlla suñu borom nee na xanaa xamoo ne yàlla xam na li nekk ci asamaan xam na li nekk ci suuf ca loolu bindoon na ko avant muy am ca loolu lu yomb la ci yàlla boo ko jurit loolu nga war a gëm dafa am lu ñuy tuddee maratib ci wàllu gëm dogal da ngay gëm ne awalan yàlla mooy ki xam lépp ñaareel bi nga gëm ne yàlla mooy ki bind lépp ñetteel bi nga gëm yàlla mooy la ma jublu ci bind lépp mooy bind na ko ci téere gannaaw ba nag yàlla mooy jóg di créer di bind lu ko neex ci doomu aadama ak la nekk ci biiram asamaan ak suuf gannaaw ba li ñuy tudd almashia muy coobare amul lenn loo xam ne am na ci kaw asamaan ak suuf lu dul yàlla xamoon na ko bindoon na ko masalan tey ñii daje ci jàkka ji tey yàlla subhanahu wa taala avant muy bind asamaan yi ak suuf cinquante mille ans comme na ko yonent bi waxe waxoon na ne bu ñu demee ba le dix-huit ca la nga xam ne mooy jumaada saaniya ca masjid Saad ibn Abi Waqaas ñii dañ fa daje ci ay góor ki jigéen ñooñee yàlla subhanahu wa taala bindoon ci ab téeréem kenn mënu cee manqué koo xam ne yàlla subhanahu wa taala dogalul woon nga ñëw ci jataay bi dara mënul tax nga nga yëg si ca jataay ba ah ngir ñu yokk ko yokk ko ak ñaan ñu ngi fàttaliku suñu mbokk Cheikh Tidiane Dieng en Bilal Thiam Cheikh Tidiane Dieng mbokk julit unité du sud la jóge ak waaxoom yàkkamte bokk ab kaamilam jëm ci tafsir bi bam ñëwee ba ci école bee fa la daanu ñu ñëw ci biir tafsir bi wax ñu ko ñoom Bilal Thiam noo demoon yóbbu ko avant tafsir bi jeex ñëw nañ nañu faatu na radiyallahu anhu mi ngi naan aw rahimahullah yàlla yàlla jégal ko yërëm ko loolu bokk benn échantillon la bu lay won ci dogalu yàlla yàlla mooy ki xam lépp mooy ki bind lépp mooy ki dogal lépp doomu aadama lan nga man mooy sabablu la ngay sabablu nag mën na sotti mën na bañ a sotti ci loolu la la yàlla y fay moo tax yonent bi alayhi salaam ne ñaari jullit buñ dajeeg seeni arme di xeex ki rey day dem safara ki ñi rey day dem safara saxaaba yi na ko waaw ki rey dem safara comprendre nañ ko mais ki ñi rey lu ko yóbbu safara mu ne daa xiiroon ci rey mbokk jullitam kon yàlla ko dogalul waaye loolu mu nekkoon yéenim kon mbokk lii la jullit war a gëm loolu moo tax ñu war a boole ñaar di sabablu ci lu baax boole di ñaan yàlla bu yàlla dogalee lu neex ñu sant ko gërëm ko bu yàlla dogalee lu naqari ñu muñ ñaan ko mu mu mu indil la ñu lu neex ndax lépp ci dogal yàlla la nekk inna zalika ala allah yasir loolu yomb la ci yàlla waaye lii lépp mbokk teewul yàlla mi bind doomu aadama yi di leen rey tàggatal leen asamaan ak suuf tàggatal leen géej gi tëralal leen ay yoon yónni leen ay yonent teewul suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni li ëpp ci doomu aadama yi ñi ngi jaamu leneen lu dul yàlla ci lu mu wàccewul benn lay ca tooñkat kenn du ko dimbali àdduna kenn du ko dimbali alaxira amma yow julit li ngay saxal foo mën a toll mooy yàlla iyaaka naabud ñun yow dong la ñuy jaam wa iyaaka nastain yow dong la ñuy dimbali ko ñooñee di bokkaale borom bi jalla wa ala heure bu ñu leen jàngalee aayay borom bi yoo xam ne day wone tawxiid ne kenn wurul jaamu ku dul yàlla kenn wurul yaakaar ku dul yàlla nga gis kanam yi daal di ñëkk ñu xaw a dal ca ña leen koy jàngal doonte ne am na ci ñu doon jàng aayay borom bi ñu rey leen ñuy jàng aayay borom bi ñu tëj leen ñuy jàng aayay borom bi ñu dàq leen fa ñu dëkke woon lii lépp nag borom bi subhanahu wa taala ne xam leen ne lu ngeen mën a def ñii jàngale diine yàlla ji rey leen tëj leen dàq leen lu ngeen mën a def def leen ko waaye am na lu gën a garaaw loolu téeméeri yoon lay xaar ñu weddi aaya yàlla ca mooy naaru jahannama bi nga xam ne moo gën a bon ci lu doomu aadama di mucc mi ngi noonu yàlla yàlla musul ñu ci naari jahannam fastami'u la door nañ benn misaal ngi déglu leen ko inna lazina tad'una min dunillah ñi ngeen di woo ca duñu yàlla lañ yaxluqu zubaba duñu mën a bind mukk benn weñ wala ijtama'u la doonte ne ñoom ñépp a daje woon duñ ko man wa in yaslubu wa in yaslubuhum zubabu shay'a su dee daa këf ci ñoom aw weñ dara lu mën a doon laa yastanqizuhu minhu duñ ko mën a génnewaat ca la nga xam ne di ko mën a nangu ca weñ woowee da'fa taalib wal matlub ak lompañ aji kiy woo leneen lu dul yàlla ak la nga xam ne dañ koy woo ca du yàlla maa qadarullaha xaqa qadri nit ñi day ah nattuñu yàlla dëgg-dëgg nattuwaayam ay joxuñu yàlla dëgg-dëgg gëddaam inna allaha la qawiyun aziz yàlla mooy al qawi ki nga xam ne mooy borom kattan ga al aziz mooy ki not lépp lu mu mën a doon allahu yastafi min al malaikati rusula yàlla mooy tànn ca malaaka yi ay yonent wa min an nas tànn ca nit ñi ay yonent inna allaha samiun basir suñu borom yàlla mooy aji dégg lépp aji xam lépp aji gis lépp non yaalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum xam ne la nekk ci seen kanam ak la nekk seen gannaaw wa ila allahi turja'u al umur te ci yàlla li mbir yépp di dellu jalla wa ala mbokk suñu borom mi ngi dóor misaal ñeel ñiy jël leneen di ko bokkaale ci du yàlla mu ne ay yéen nit ñi déglu leen misaal bii ñu leen di dóoral képp koo xam ne dañ koy woo ca du yàlla day ñoom ñépp bu ñu daje woon mboolem ñi ñuy woo ci duñu yàlla mënuñoo bind benn weñ ca loolu mbokk julit mboolem scientifique yi dëppoo nañ ci ne la nga xam ne mooy créer luy dund munta nekk bal lu gën a yéeme loolu am na benn ci savant juif tëju na seize ans seize ans ci ay laboratoire lan moo nekkoon yitteem mooy dekkal lu dee waxul créer dara de mais li xis ba dee ñu dekkal ko après seize ans de recherche ca la ne daal c'est fi lii moom kenn mënu ci dara kon mbokk dundal yàlla rek moo ko man jalla wa ala doomu aadama tey mi ngi tabax mi ngi nuñ ko waxee naawal ay avion ay fusée doomu aadama dund mi ngi koy def waaye mooy matériel bu dee amma dund yàlla rek moo ko man mu ne nag mënuñoo bind benn weñ gannaaw ba bu doon weñ dafa ñëw këf ci ñoom dara amuñu kattan sax man koo dindi ci moom ca loolu suñ borom ma ngi ca doon wax yéeféer yi nga xam ne dañuy samp ay xërëm di ko jaamu te mooy fa alquran doon wàcc kaaba ga trois cent soixante xërëm ñu nga fa woon suñu borom ne weñ daloon ci xërëm bi sax xërëm bi ci bopp mënu ko dàq waaye mbokk dañ naan alquran mooy la nga xam ne mooy al ibara bi umumi lafz la bi xusuusi sabab yàlla buy wax day wax ak ñépp loolu kon du ne xeer yi ñu doon jaamu rek waaye mbokk keneen ku dul jaamu ci dul yàlla bokk na loo xam ne scientifique yi mujj nañ ko trouver ci kawtiifu yàlla mooy weñ dafa am benn liquide bu yàlla def ci gémmiñam mooy li doomu aadama am ay salive moom am ni liquide bu ko yàlla def ñi ngi koy tuddee enzyme ci français enzyme dañ ne liquide boobu weñ lu mu jël rek day daal di changer automatiquement nekk leneen masalan bu juróon léegi xorom bu duggee fraction de seconde dootul xorom mu jël sukkar bu duggee fraction de seconde mooy soppi na ko loolu kon muy wane ne lu xis bu dugg ci weñ kenn mënu ko kenn mënu ko nangu moo tax suñu borom laay seen xizuuhu minhu ndax yàlla def na ci loo xam ne nii na doon loolu sunguf la lu mu mën a doon bu ko xisee ba jël bu dugal rek c'est fini changé changé na loolu di kawteefu yàlla encore bu yàlla wane ci alquran comme na mu ko digge woon borom boobu nag nekkoon aka doye di aka lompañ koy dem di yaakaar keneen ku dul yàlla te mooy doomu aadama yaa gën a tedd ci kaw suuf doomu aadama yow miy dund kii de yow la yaakaar su way gaa yi sëriñ caam ndax moo gën sahabatul kiram yi fi nekkoon ndax moo gën jullit yi nga xam ne yàlla nee nañu ñu ñaanal leen suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni walazina jaau min baadihim yaquluun rabbana axfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman mbokk ñii dee ñañu yaakaar muy ñuy dund ñaanal leen seen borom moo tax ki dee na doon imam laam docteur laam lu mu mën a doon fardul kifaaya la kenn amul droit suul ko loolu taxaw nañ ci kanam borom bi ñaanal ko am déet suñu borom yoonal nañuy dem ci armée li di leen ñaanal suñu borom ñoonal foo jullee nga ñaanal leen waaw léegi nag yow kooku nga xam ne daa soxla nga ñaanal ko yow nag nga ne fa ñukk moom di ko ñaan moom di daanu na yaa Cheikh Thiam te daanu na yaa Cheikh Sow barke nangam di woo keneen ku dul yàlla suñu borom mu ne daaw fu taalibul matlub ak a doy de ak a lompañ kay woo keneen ku dul yàlla kam yi woo nag moom waxi noppi mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala nag ne li waral lii lépp mooy nit ñi dañoo joxul yàlla dëgg-dëgg gëddaam te yàlla mooy borom kattan gi mooy ko notli bokk yi firi makka yi gëmoon nañ yàlla de boo leen waxee que billah subhanahu suuf ñu ne yàlla boo leen waxee kan mooy dundal ñu ne yàlla ilaaxee lu tax ngeen di bokkaale ak yàlla nag ñu ne hey ñun xërëm yi ñu ngi leen di jaamu li yuqarribuna ila allahi zulfa am déet wa ma naabuduhum illa li yuqarribuna illa zulfa yàlla il ñii ñooy suñu digg ñoo dox suñu diggante ak ñoom mbokk nag suñu borom mu ne jaam yi de xamuñu ma ndax xamuñu ne lu leen jege rek man yàlla maa leen gën a jege misaal bi ñu leen si jox toujours bu ma ne woon hee sëñ Demba mais ci rude ba kaay jotti leen ma Cheikh Ousmane téere bi bu ngeen jàpp dama mi xel mi am na lu ci nekk waaye ñu noonu parce que yow koo jàpp ne yaa ngi koy woo pour mu jege la yàlla yàlla mu ne wa ida saalaka ibadi anni fa inni xarib maa gën a jege suñ borom mu ne moo gën a jege min xablil warid sa buumu xol gi yàlla lu ko gën a jege kon lu tax ngay jàq ne yaa cheikh diw lan nga ci jublu waaw yàlla mooy def waaye nag yàlla moom dafa sori dañ koy nangam nangam ca mbokk da ngay gis ne lay bi yàlla am ci ay jaamam da ngay gis toujours doomu aadama bi kam yaakaar bëgg koo bokkale ak kenn loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala ni yàlla muy aji dégg yàlla muy aji gis yàlla subhanahu wa taala mu ne mooy tànn ci ay yonent ci nit ñi tànn ci ay yonent ci malaaka yi gaa yi kan la yàlla mujj yónni ci ñun mooy suñu yonent wax leen ko waay muhammad sallallahu alayhi wa sallam al nabi al ashimi al qurayshi ba dundoon ci kaw suuf ñaar fukki at ak ñett ci ak yeneen tam nga ba mu ko booleeg lu jiitu di 40 ans muy 63 ans mu faatu sahabatul kiram daal di koy teg jullee ko suul ko ci xabroom ba ñu nekk di ko ziyaare yow mu diin bu doomu aadama war a dekk mooy jëkk génn ci xabru ba kooku mooy yonent bi yàlla mujj yónni ci ñun am déet li ngi noonu jamono yi yàlla nattoo nañu Sénégal aw kawtiif ci kawtiif yi mooy benn jigéen woote na nee na moom yonent yàlla la léegi nag li ci gën a yéeme mooy famille ba mu féetewoo ñoom it dañ ne seen maam yonent yàlla la fan yii kenn ca ñoom génn ne soxna soosu di woote yonent yàlla seytaane ko yónni waaye dernier yonent mooy sama maam mi ngi noonu sama maam la yàlla mujjee yónni mbokk mi ngi noonu faatabiru yaa ulul absar yéen borom xel yi xellu leen su ko defee le sénégalais mooy ne la xaa jigéen bi woote yonent waaye wallahi moo ma gënal góor gi woote yonent ndax jigéen bi woote yonent ki am tuuti xel rek dana xam ne day fen waaye góor gi woote yonent mën ngaa am ay sikk sàkk ci moom waaye ngal waaye mbokk bu leen ko négocier bu leen ci am benn sikk sàkk a rasul sallallahu alayhi wa sallam mooy xaatama nabiyin a rasul sallallahu alayhi wa sallam yàlla du yunni keneen képp koo xam ne taxaw na di ab njaago ab lëbu ab pël ab kum mën a doon taxaw juddu ne man maay yonent yàlla muhammad moom wax jooju ma waxi kéeféer la ku ko dëggal wa dëggal naa kéeféer bu leen ci sax sikk sax loolu ñu bàyyi ci xel bu baax yàlla mooy tànn ci ay malaakaam tànn ci ay yonentam nee na ki mujj a tànn mooy yonent yàlla muhammad xaatama nabiyin da nga noonu xaatama nabiyin borom boobu nag subhanahu wa taala nag daal di tëjee ni mooy ka nga xamee ni nii xam na li doomu aadama yi jiital bu ñu fi yegee lañ bàyyi seen gannaaw xam na ko mbir yépp ci moom lay dellu ca mooy yonent yàlla bi yàlla tànn it waru garam rek mooy jottali yàlla nag mooy dugal ci yërmandeem ku ko neex yàlla na yàlla dugal ñu ci yërmandeem mi ngi noonu Cheikh Ousmane
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما
jazakumullahu xayra suñu borom jalla wa ala mu ni yaa ayuha alladina amanu ey yéen ñi nga xam ne dañuy na gëm irka'u wasjudu dee leen rukkoo ci sujud wa'budu rabbakum ca ngeen jaamu seen boroom waf'alul xayra la'allakum tuflixuun ca ngeen di jëf yiw ngiree ngeen texe wa jahidu fi llahi xaqa jihaadi dee leen def ay effort di góorgóorlu jëm ci yàlla na yàlla yeyoo ñu góorgóorlu jëm ci moom jihaad mooy effort bi doomu aadama di def huwa jabaakum moom moo leen tànn wa ma jaala alaykum fi diini min xaraj te defalul leen ci diine ji benn xat-xat mi ngi noonu benn jafe-jafe millata abikum ibrahim lii mooy doxaliinu seen baay ibrahim huwa sammaakumul muslimiin moom moo leen tuddee ñu jébbalul yàlla min qablu ci lu jiitu wa fi haada moom it lañ leen tuddee ci alquran ji li yakuuna rasulu shahidan alaykum ngiree mu nekk yonent yàlla bi aji seede ci yéen wa takunu shuhadaa ala nas yéen tamit ngeen nekk aji seede ci nit ñi fa aqimu salaa taxawal leen julli wa aatu zaka te ngeen joxe azaka wa'tasimu billah te ngeen mooy ci seen boroom mooy jàpp bu dëgër huwa mawlaakum moom mooy seen féete fa ni'mal mawla ak a gën ci ku ñuy féetewoo wa ni'mal nasir ak a gën ca ka nga xam ne nii mooy kay dimbaliwaatee ni nga noonu mbokk suñu boroom def ñoo sant nañu nañuy julli waaye ci biir julli gi mu wax ñu ci xéewal yoo xamee ne nii dañ ko caa defal mbokk mooy xéewalu rukkoo ak sujjóot suñu borom yàlla nee na nañuy rukkoo loolu it mbokk jullit tey ak a bari ay jullikat wallahi boo leen seene ñuy julli nga xam ne nee nañ ñu ngi julli waayu rukkoo wuñu ndax gaa yi mosu leen koo gis lu bari ci ngeen gis nañ mooy ba ñuy rukkoo dañu sëgg nii rek dellu si waat suñu borom mun a sujjóot leen dañu jël seen jëddoor rek jogaat waaye mbokk loolu xéewal la gu ñu yàlla subhanahu wa taala defal mu ne nañuy rukkoo ko sujud di def yiw ngiree ñu texe texe googee la ca gën a màgg mooy allaxira la ñuy xaar ca firdawsil ala ca boo xoolee page gauche moom nga cay fekk qad aflaha muminuun ulaika humul warisun alladina yarisuna al firdaws waaye avant al avant allaxira mbokk adduna ji kese wallahi julli li muy defal doomu aadama ci wàllu wér-gi-yaramam xoolal rek imaginer tey jii benn góor a ngi nii am na quatre-vingts ans wala lu ko ëpp suñu borom farataal ci moom bés bu nekk dana def dix-sept rukkoo mooy farata bi dix-sept rukkoo ak trente-quatre sujud muy cinquante et quelques mouvements yoo xam ne farata la ci moom même bu dee du def benn naafila gaa yi loolu li muy def ci doomu aadama na xam ngeen ko julli googee laaf ga muy àndal ci sangu farate ci njàpp ndax xam ngeen mi def ci doomu aadama julli googu moo tax ñu tabax jàkka ji tey moo tax ñu daje fii tey moo tax di jàng ndax xam ngeen li muy def ci doomu aadama la nga xamee ne waa ji nekk ci liggéeyam ci stressam julli jot ñu forcé ko nu ko demal isolé wu pendant quelques minutes la muy dalal ci boppam ndax xam ngeen loolu xéewul ga muy def ci àdduna avant àllaaxira loolu tax suñu borom ne ngal la waaye sax leen di julli waaye julli gën a rukkoo ya mat na sujud ya mat a rasul sallallahu alayhi wa sallam benn waaye dugg na ci jàkkaam ñëw julli ba pare assalaamu alayka ya rasulullah yonente bi ne nikk ci loxoom ne ko saa waay suñ caam mun a am ne ko demal julli jullee góode mun a ha dem këpp këpp këpp këpp këpp assalaamu alaykum ya rasulullah mu téye ji loxoom ne ko suñ caam demal julli jullee góode ba ci ñetteel bi ne ko ah yu yàlla yu ne jàngal ma bokk ci gàttal xam nga lu mu doon bàyyi ak dal ak dal rek la doon bàyyi mooy buy rokkoo day sëgg ba ba sigi buy sujud day dóor ba jëba sigi yonent bi alei sam ne ko déedéet boo jullee da ngay taxaw kocc la yàlla yombal ci alxuraan nga jàng ko gannaaw ba nga rokkoo ba yëg ne sa yara yax yépp dal na ci rokkoo bi nga siggi ba yëg ne sa yax yépp dellu na place nga sujud sa juróom-ñaari cër ba yëg yépp dal na jàngal ko nañuy julli kon irka'u wasjudu la'allakum tuflihun gannaaw bi it mu ne jihaad leen ci yàlla dëgg-dëgg jihaad mbokk diine ji dafa laaj effort yambar du dund diine aji sàggan du dund diine diine dafa laaj effort yàlla da koo indi pour defar la ca moo am noon yu la wër bëgguñu ko noon bu njëkk mooy sa bakkan mbokk bakkan dafa bëgg tawfiix mi ngi noonu su ko defee fajar jot heure boobu ni nelaw di neexe nga sànni sa mbàjj dem ca douche ba sangu wala jàpp dox ci lëndën gi dem ca jàkka ja boo xeexul ak bakkan bi du sotti de sëñ càmm ni mu bëgg añ ceebu jën digg bëccëg pendant un mois mu xañ boppam añu bëccëg xañ ko naan ci frigidaire bi da ngay njëg ak sa bakkan de loolee mbokk ba diina jeex il faut nga xeex ak bakkan ñaareel bi seytaane gembu na ñaan yàlla un délai mboolem loo xam ne lu yàlla araamal la dana ko taaral ci yow yombalal la ko mboolem lu yàlla santaane dana ko diisal ci yow jafel la ko kooku dañu war a xeex ak moom di ñaan yàlla musal ci ñoom ñetteel bi mooy yéeféer yi façon moyen bu ne ñi ngi koy def ngir gàllankoor sa diine ñeenteel bi gën a garaaw mooy naafiq yi nga xam ne ñi ngi ànd ak yow guddeeg ba ca ngir découragé kon jurit fu mu mën a toll dafay war a def des efforts di xeex ak bakkanam ba matal santaane yi xeex ak bakkanam ba moytu la nga xam ne mooy tere yi jaahidu fillahi xaq jihaadi borom bi it mu ne maa leen tànn yéen bokk jurit yi xam leen ne suñu boroom ñaata génération la indi ci kaw suuf mun mu wàcc aadama alayhi salaam ba baa muy wàcc nuux ba baa muy wàcc bani israil indi nag diine ji gën ci diine ji yenent bi gën ci yenent yi alxuraan bi daa téere bi gën ci téere yi yow yàlla boole la ngay ay julit mboo ko xéewal googu kenn xamul lu mu toll xéewal gi gën a rëy gu doomu aadama yàlla may ko ci kaw suuf mooy mu def ko julit bu gëm yenent bi topp yenent bi yàlla na yàlla boole ñu ci yàlla nag mu ne huut cabaakum gannaaw ba xoolal tey li ñuy dunde ci kaw suuf dañ naan la lii musulman lim ba gën a rëy au maximum il faut un milliard cinq cent millions un milliard et demi ci diggante juróom-ñaari milliards ñu dund ci kaw suuf yàlla tànn ci un milliard et demi yu gëm yeneen bi alayhi salaam kon yàlla moo la tànn tànneef googu nag da nga koo war a yeeyoo war koo suuxat war koo sàmm naka lañ koy defee borom bi subhanahu wa taala mu ne xam leen ni diina ji defalu mu leen ci benn xat-xat weeru koore ngi da ngaa feebar bàyyil yaa ngi ci tukki métti na bàyyil ba mu yomb nga doo koo fay julli gii ma la sant munoo taxaw toogal ila axiri ak makka farata la amoo paas amoo moyen teggil naa la ko zakat farata la umunoo gën a zakat teggil naa la ko wa ma jaala aleykum fi diini min xaraj mi ngi noonu lépp loo xam ne ni xat-xat la rek yàlla teggil na ko julli ñi ci diini ci moo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala nag neñu xam leen ni lii mooy yoon bi nga xam ne seen bàyyi ibrahima ci la jaaroon ay yéen mushrikuna makka yi woote ne yéen a ngi ci diine ibrahim déedéet ibrahim dafa doonoon ku jébbalu loon yàlla ñi koy nar a roy ba ilaa yawmi diin te bokk na ci xeetu yonent bi mu tudda leen ñi jébbalul yàlla te mbokk mi ngi noonu jébbalu rekk a wóor ku dund ba xëy dee ci jébbalu wuloo wallahi alkaa nga ñel na la mbir mi nag kay mooy ci kan la ñuy jébbalu mi ngi noonu gaa yi ibrahima boobu ba ko suñu borom ne aslim daf na aslamtu li rabbil alamin mu ne nuux baayam la de aadama baayam la ndax wax na aslamtu li nuux wala aadam aslamtu li rabbil alamin loolu la santoon xeetam sëtam ba yanquub keroog ba muy faatu yàlla ñu ko nettali yanquub mi ngi ci kaw lalam di sukuraat doom yaa ngi ko wër fukki doom ak ñaar bokk na ci yusuf alayhi salaam yi rasulullah mu ne ay yéen sama doom lu ngeen di jaamu sama gannaaw ñu ne ko duñ jaamu kenn lu dul bu ñu waxoon dañuy jaamu yàlla rek ñu am lënt waaye dañ ne ilahaka sa yàlla ilaha abaika ibrahim ismail ishaq ilahan wahid benn yàlla lañ jaam wa nahnu lahu muslimun ay bàyyi da sa xel del jébbalu wuñu ci ibrahim jébbalu wuñu ci ishaq jébbalu wuñu ci ismail yàlla ñun yàlla lañuy jaamu ci yàlla luñ jébbalul gaa yi jëlul yéen ni ko jàng waay mi ngi noonu kon moo leen def ngeen doon muslimin ci lu jiitu alquran ñoo feddili loolu jullit du jébbalul ko dul yàlla ngiree yonent yàlla bi nekk suñu seede yowmal qiyaama ci ne jàngaloon nañu diine yàlla ci gannaaw ba yàlla indi yeneen xeet yi xeeti yonent yàlla ñëw seede ne yonent yooyu jottali woon nañu risaala yàlla bi suñu borom yàlla tëjee lam ubbee woon waxoon nañu irka'u wasjudu moo tëjewaat ne fa aqimu sola taxawal leen julli ca mbokk yi mbir bi it nekkul ci rukkoog sujud yi mat rek de waaye suñu borom mu ne fa aqimu sola mooy tey jii waa ji bàyyi woon nekk ci ab dam yéem nekk ci xeewam takkusaan jot na mu nekk ca bànneexam ba jant bi so mu dem nag tëju ci néeg ba daa di julli julli gu correct rukkoo ya mat sujjud ya mat ndax kooku li mu def baax na abadan li mu def baaxul lu ko waral mooy julliwu ko ca waxtu wa kon fa aqimu salaa day leen julli ca waxtu wa fa aqimu salaa day leen julli ànd ak laab fa aqimu salaa day leen julli ànd ak toroxlu fa aqimu salaa dëppale leen ko ak julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom boobu nag subhanahu wa taala mu ni su ngeen paree it ku am alal na ca génne zakat ca ngallawaay dee leen moy ci seen boroom julit yàlla lay yaakaar julit yàlla lay sukkandiku julit yàlla lay ñaan wa'tasimu billah moy leen ci yàlla yàlla moomu mooy seen péete adduna ak alaxira ca wallahi ku ko doyloo féetewoo ko adduna ak alaxira dana gis ne moom dong mooy kuy doy kuy féetewoo jaamam moom dong moo yeyoo di dimbali ay jaamam adduna di leen dimbali alaxira yàlla day suñu borom anta mawlaana yaa ni'mal mawla wa ni'mal nasir fansurna fi dunya wal axira yàlla ñu yàlla dimbali adduna ak alaxira boole ñu ci ñi nga xam ne dañ koo jébbalul saxal ñu ci millata ibrahim ma ne kon millata rasul sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain
alhamdulilah xam naa ñu bàyyi xel rek lii gars yi barkeeloo par fin du mois 1000 francs yi ñuy def ku ko jàppandal mbokk yaa ngi ci bitti mbokk yi nga xam ne ñoo nekk Grand Yoff fi di ko ak li ko wër am na conférence bu ñuy def at bu nekk ci juma Ali ibn Abi Talib ci zone de captage ren ñi ngi koy nar a def dimanche bi di ñëw conférence bu njëkk ba ki koy def mooy docteur Mohamed Lo ci la nga xam ne nii moom mooy aay bi suñu borom di wax naan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha te mooy bu leen yàq ci kaw suuf gannaaw ba ko yàlla yéwénalee ca ngoon nga ña fay daje mooy oustaz Mor Kébé ak Alioune Badara imam Alioune Badara Ndaw bu Kaolack ñoom it ñi ngi wax ci la nga xam ne nii mooy gàllankoor yi ñu doon teg l'islam démb ak gàllankoor yi nga xam ne dañ koy teg l'islam suñu jamono yi tey jii loolu mi ngi commencé trois heures moom tamit bu njëkk bi onze heures lay commencé ci suba ñaareel bi mi ngi commencé trois heures naam ah bismillah naam naam bismillah wa iyaakum ki nga xam ne dafay jàng alquran bu dee ne dafa nekk ci julli dañoo yoonal buy sujud mu wax allahu akbar bu siggee mu wax allahu akbar su dee ne da nga xamee ne nii dafay nekk ci lu dul julli nag loolee moom mën na wax allahu akbar ca ba muy sujud bu ko waxul it loolu dara néewu ca amma siggi bi moom duñ ca wax allahu akbar duñ ca it def la nga xam ne muy ab sëlmal naam mi ngi noonu gis nañu ne romb nañu aaya sujud doonte ne ne sujud boobee yàlla farataalu ko ci ñun comme na ko Omar ibnul Xattaab waxe woon ñaareel ba yëpp borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ci ñaareelu ay sujud boobu ñu romb sànq ndax lu ñuy sujuutal la wala lu ñu dul sujuutal ala kulli xaal ku ko sujud def na lu baax ku jàpp ne bokkul ci li ñuy sujuutul it nga xam ne loolu la wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw waaleykum salaam waaw yaakum naam naam xam nañ ne waa àjjana dañuy gis suñu boroom ndax ñi nga xam ni dañ leen a génn sawara dugal leen àjjana ndax dañuy gis suñu boroom suñ leen xisee ba génn sawara kay dugal leen àjjana ci waa àjjana lañ bokk kon waa àjjana dañuy gis suñu boroom ña dul gis suñu boroom mooy waa sawara innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun mooy ñay dem sawara ñoom du ñuy am xéewal gi gën a rëy gi ñuy fekk àllaaxira mooy xéewalu gis suñu boroom na leen yàlla di xañee lekk ak naan yaag suy yaag bànneexu ya la leen di xañee xéewal gi gën a rëy te mooy jàkkaarloog suñu boroom yal na yàlla boole ñu te ñooy jàkkaarloog moom non bismillah waaw waaw
seen yaay am na borom kër waaye nag nekk la borom kër léegi nag ñu doon laaj ñoom ndax ñu leen récupéré seen yaay pour delloo ko seen papa loolu lu ci islam la.
foo xam ne nii sa yaay mi ngi sëyeeg keneen ndax man nga dem récupérer sa yaay delloo ko sa papa ñoom moomuñu seen yaay ba koy delloo ala kulli xaal la nga xamee ni nii day mooy la nekk moo di ne ni ab sëy moom kenn mënu caa dugg fekk ne da nga nekk ci buumub jàmbur heure boo xamee ni nii daal seen yaay jóge ne ca sëy bu njëkk ba su boobaa mën nañ négocier delloo ko seen baay li ñuy wax kay mooy waxtaan ak seen yaay pour mu bàyyi ko.
waaw pour waxtaan ak seen yaay mu bàyyi foofu mu bàyyi sëy bu njëkk ba it loolee beneen lor da cee nekk beneen lor bi ci nekk mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne bépp jigéen boo xam ne yaa ngi jóg di ñaan sa borom kër baat te du àndul ak benn lor ku mel noonu day xaram ci moom xetuk aljanna su ko defee bu dee yow jigéen yaa ngi ci sëy ki nga xam ne moom mooy sa borom kër la mu warloog yow lépp mi ngi koy def amul benn lor boo xam ne nekk na ci yow loolee amoo droit di génn ci moom di dem ci beneen góor te fàttalikul ni góor ba mu bëgg a dellu da koo fase woon te booba am nangam jaw na pare fase ko su bàyyee góor bi dellu ci moom lan moo ñu war la du ko fase waat ala kulli xaal daal jigéen am na droit génn ci sëy bu ko lor dalee bokk na ci lor yi ñàkk bëgg jëkkëram ñamee jëkkër bëgguloo ko am nga droit génn ca ca ca ca ca loolee bu dee ne mi ngi leen loolu am nga dara génn ci loolee mais daal bu dee benn lor amul ci yow jigéenu jullit du tëb rek ne day jóge ci góor gi ngir jëm ci beneen góor gum gën a bëgg wala gum ëpp ci moom yaakaar ay moyens déedéet mbokk jullit wallahu alam naam bismillah waaw moom lu mu def waaw mais moom lu mu def laa wax ah d' accord bon ala kulli xaal day wax fii ci ne dañ doon julleeg imaam imaam def benn sujjuut sëlmal bi mu defee benn sujjuut sëlmal ñu nekk fa di discuter ndax dafa war a def xabla salaam dafa war a def baada salaam bokk na li siiw ci mazhab Malik ci téere yi ñuy jàngi fii mooy imam bu sëlmalee ci benn sujjóot dafay jóg indi beneen rakka bu mat sëkk ba ju daal di sëlmal ci julli gi def baada salaam loolu mooy li siir fii ci mazhab Malik soo demoon nag ci yeneen i borom xam-xam ñoom dañ naan déedéet benn sujjóot la manqué sabbal nañ ko ni indi beneen sujjóot taaya ba taaya ba pare sëlmal su sëlmalee def baada salaam waaye nag bu dee téere yi ñuy jàng fii ci mazhab Malik ñoom dañ naan déedéet maadaama sëlmal na ci diggante ñaari sujud yi rakka boobu da koy annulé indi beneen rakka dooga sujud baada salaam wallahu subhanahu wa taala alam aw naam bismillah waaw mun waaw loolu mooy question bi ñu posé ni rek daanaka amul différence moom tukki na dem na vingt ans kenn xamul ci moom dara bu dee ni dañoo gis ne sharia ñoo demoon ba tas sëyam te la nga xamee ne nii moom mooy atte gëstu nañ yañ waroon a gëstu yépp ba dogal ci moom ne kii kat dootul ñëw loole da ngay gis ne ñee ñuy sëyal sëy yooyee bi ñu wax naan dañ cey génn ñoom ñëpp di dellu si waat encore ci moom mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw waa ji daf doon julli bi téléphone bi sonné mu décroché na allahu akbar ala kulli xaal loolu nekkul lu yàq julli lu dul ne doomu aadama bi war naa fegu heure bu yoree portable mu koy bàyyi xel bu ko mënoon a fayit loolu moo gën muy jóg di wax ci portable bi waaye maadaama moom allahu akbar yi mën koy wax ci julleem wax jëm ca wax allahu akbar loolee waa ji xam ne day julli loolee nekkul loo xam ne nii dafay doon lu yàqu julleem wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw waaw te ñu ko def benn rek comme mbokk yi dañuy laaj waaw bismillah waaw waaw ndax yéeféer bu majeuragul bu dee dañ koy xisaab loolee day ixtilaaf daf ca am ci borom xam-xam yi bépp doomu yéeféer bu majeuragul la ca gën a digg doomu mooy yowmal qiyaama la ko yàlla di nattu yónnee ko koo xam ne da leen di dégg jox ndigalu yàlla te mooy dem leen duggi sawara yàlla mi nga xam ne moo xam kumpa xam ay jaamam xam ña nga xam ne buñ dañoo woon ak yonent ci àdduna gëm ko daa bu dee nar na bokk na ci ñooñu day gëm yonent yàlla boobee loolee ñu dem dugg ca sawara ba sawara wa nekk ci ñoom bardan wa salaaman comme ni mu ko defaloon ibrahim amma bu yàlla xamoon ne ba dajeeg yonent da koy weddi su boobaa it dañuy gis ne day weddi yonent boobee yàlla yóbbu ko sawara loolu mooy la gën a digg doomu li gën a xellu ca la ca borom xam-xam yi wax donte ne am na wax yeneen yeneen ñaari wax yu contradiction ak yooyu am na ñu ne dañuy ànd ak seen bay dem sawara am na ñu ne dañuy dugg biir àddina directement waaye li gën a digg doomu daal mooy yàlla da leen di napp yowmal qiyaama ay yàlla kon moo gën a xam fu mu jëm wallahu subhanahu wa taala alam naam mbokk bi waaw bismillah waaw waaw ndax waaw ndax li nga xam ne mooy césarienne dafa nekk cas nécessité wala ku ko bëgg a def mën na koo def ala kulli xaal jàpp naa ne médecin yi bala ñoo dem bay xalaat ne dañ ko césarienne dañoo dem ba gis ne am doom normalam loolee day doon ak lor loolee lañ ci gën a yaakaar même bu dee loolu amul it gisuñu vraiment loo xam ne dana mën a tere jigéen def césar jigéen def césarienne même bu ko jàppee ne mën na am doom normal waaye la nga xam ne mooy la gën a mucc ayib mooy suñu borom nee na doomu aadama summa sabila yassara moo ko yombalal fu muy génne su dee na sage-femme wala gynécologue yi xool nañ ne mën nga am doom normal jullit warul dem di dugg di xotti bi rëpp ci ay césarienne wallahu subhanahu wa taala alam waaw yaakaar naa mbokk mënees naa ah mënees ah waaw mënees naa mujjee ci loolu rek ci des ñu bàyyi ko ba yàlla dajalewaat ñu fi wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain